bu ndekkee ñëw ci maamalaaji mu ne ko jukkil ma téere sàngam mu jukki toog ci wetam di ko liiral muy dégg di ko liiral muy dégg di ko liiral ba lam ci soxla ñu lem boobu téere mu jukki beneen ba bibliothèque yi maamalaaji lépp maam xalifa da ko yër koo xam ne bu gis bu yëree xam te lum xam du ko fàtte kooku xam-xamam dafay jégg dayo ba ci ay xuliyatul awliya jaameo karamatul awliya yooyu yëpp foofu la ko sama maam xalifa liiree maîtriser ko ah yore na xelam kélleel li li ñuy wax fii mooy maamam Ibrahima Thiam kélleel ku jéggi day lool woon de ci xel mu rey loolu moo tax euh, xam-xam bi toll noonu xam-xam dëgg mi ngi xem ci mën a way way yoo xam ne balaaxa ba ñor na way yoo xam ne luxa ba baax na way yoo xam ne wasnu bi nga ko def ak baxru bu mu mën a doon ci boxóor yi baax na fala xam-xam xem yow nag soo njëkkeexee sa xam-xam ci way rek damay ragal mu tere laa yegg ci yeneen xam-xam yu bari moo tax li ko bàyyam suulal ci ay way bañ gémmañ jàpp ko tabaarakallaahu kenn xamut ni mu toll mu jigéen nag bu bu wanee baayam rek baayam suul waaye nag benn bis nag la taalif benn téere euh, téere laa ko mën tuddee baayam a ko baayam a ko tuddee téere bi euh, tagg ci sayduna muhammad nga xam ne matlax ba mooy jabat xifaaran bi aadan la anisa biha salma ilayya wa duuni bahru ahwaali daal bu lew na ñeseen ren jii nag ngi ànd ak euh, oustaz euh, Hady Niass euh, l'international oustaz Hady Niass bu Walf TV toog ci place bi nga xamante ni nag El Hadji Sidi Lamine Niass ma yàlla na yàlla yokk ay leeram moom moo fa doon moo ko doon def ren jii nag oustaz Hady comme quelques années moom moo koy def ñu bàyyi leen rek dégtal leen li nga xamante ni moo di conférence bi muy amal jamono ji fii ci biir lew Niassène wa wa ashaabihi dhawi tamkini wa rida wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmin yalqal muslimuna al fawza wa rida nahmadullaha ta'ala an jama'ana maratan ukhra fi hadhihi al buq'ati al mubarakah taxta riayati wa rëhni ishaarati alxalifati alaam xaadimil ummati nañ rek ñu dégtal mbokk téléspectateurs yi li nga xamante ni moo di euh, conférence bu euh, oustaz Hady Niass di amal jamono ji fii ci euh, lew nañu seen Kaolack ayuha alxuduru alkarim wal jamu alqaadimuuna min shatta adgalil bilaadi wa xaarijiha li xuduuri hada alliqaai almawsimiyi al agar bi hada alshakli alxaashib assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nusji ilaykum asma ayati shukri wa taqdir على تلبيتكم لهذه الدعوة الإسلامية المباركة دعوة لزيارة قطب الأكبر والكبريت الأحمر هبة الله للعباد ورمية نعمة أنعم الله بها على البلاد مولانا الخليفة الحاج محمد نفعنا الله ببركته وحشرنا بمحشره مع سمرة الأتباع والأحباب بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم mbokki jullit yu tedd yi fi daje ci bis bu tedd bu màgg bi bokk ci bisi yàlla yi ngeen bokk daje ci xadara bu màgg bu sell bi bokku ci xadara yàlla yi ngeen nekk ci roon keppaarak nitu yàlla ku mag ku bokk ci nitu yàlla yi ya ca gën a màgg ci xam-xam ci wilaaya ci lijaaba ci defaru ci defare ci dëddu ci mbaax ci baaxalaate di mawlaaya xalifa alxaaji muhammad ñas ngeen dajee fi bàyyeekoo ci ay gox yu fasantikoo ak ci ay palaas yu wuute ci biir réew mi ak ci bitim réew ci diggante ay góor ak i jigéen ëmb ay mag ak i ndaw boole ay xarit ak i soppe dajale ay wëllëre ak i bokk lamboo ay boromi xam-xam ak i ay ilimaan ak i ay muqaddam ak i ay notaabul yéen ñépp ki seen tur ci seen sant ci seen jëmm lay àbbee làmmiñu xadara bi yépp do dooree ci xalifa bu tedd ba mawlaaya cheikh ahmed tijaani ak i ay rakkam ak i ay doomam ak ay sëtam seen làmmiñ la àbbu nuyu leen ci seen làmmiñ la àbbu nuyu leen ci nuyu waa aljana muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu abbu làmmeñu sang yooyu ma tudd yépp dalal leen ci seen xadara bopp di xadaratu lew na ñaseen di xadara bu siiwee ci nangu ñaan ba tax na xadara bi mooy fuuru borom soxla yi di xadara bu siiwee ci tàggarti ku takk ci xadara bu siiwee ci defar ku yàqu di xadara bu siiwee ci gindi ku gëlëm di xadara bu siiwee te jokkale jaamab yàlla beeg boromam moo tax nit ñi di bàyyeekoo ci àdduna bi fu ne ñëw fii di sàkku ci fajukaayu soxla boroom xadara bi sancoon ko gannaaw bi mu bàyyee koo faas fees tepp ci may mawlaaya alxaaji abdullahi ñas ci 1911 ànd ceeg taawam bu tedd bi boroom xam-xam yi boroom xam-xam yi di taawu taaw yi di xalifaab xulafaaw yi mawlaaya maam xalifa ñas ba mu ñëwee fii ñi ànd lu njëkk a def mooy rëdd armeel yii nekk suñu càmmooy maam alaaji ne xam ngeen place bi mooy ban ñu ne ko déedéet ñes mu ne fii mooy kër gu mujj gi ba mu ci bàyyeekoo ñëw rëdd zaawiyam bi nga xam nañu nag moom matul cinquante mètres ne xam ngeen place bii mooy banam ñu ne ko déedéet mu ne fii la ñuy waajalee la ñuy yóbbu ca kër gu mujj ga ba mu ca bàyyeekoo door a ñëw rëdd néeg yi ne xam ngeen néeg li muy tekki ñu ne ko ñes déeréet mu ne mooy tekki négandiku fii la ñuy négandiku ba suñu borom soxla ñu ñu dem ca kër gu mujj ga yóbbuwaale lañ doon waajalee ca jàkka ja mam alaaji nekk fi onze ba vint deux ba muy nekk onze rek ci la jël xalifam bu tedd ba mawlaaya xalifa alxaaji muhammad ñes def ko muy xalifaam bind Seydi Sukayrij leetar ne ko sama taaw bi di maam Khalifa Niass mat na ci lépp mat na ci xam-xam mat na ci wilaaya mat na ci ragal yàlla mat na ci maandu mat na ci doylu mat na ci dëggu mat na ci dogu bis tey maa ngi lay yëgal ne def naa ko muy sama xalifa te man kuy sama xalifa yaay xalifaab Seexu Tijaan Sayidi Sukayru jot leetar ba tontu maam yi ne ko li nga wax d'accord nañ ci ak yow waa xadara bi yëpp d'accord nañ ci waxuma la yow waaye moom maam xalifa sax mooy sama xalifa man Sayidi Sukayru moo tax mu koy tagg ne ni'mal xalifatu fi tariqati cheyqina anna wa amman qablu fil ayaadi Sukayru ju moo wax loolu maam Khalifa Niass xutbu bu yàlla bu màgg ba maam Khalifa ko fi 1922 ba 59 taxawu lépp taxawu ñépp tabaarakallaahu ci jàng ci jàngale ci jubal ci baaxal ci ci faj soxlaay doomu aadama yi ci tàggat bi tag ñi nekk amee jikkooy ascenseur nit ñi di yéegee ci moom di xam ñii di yéegee ci moom di am ñii di yéegee ci moom di man ñii di yéegee ci moom di baax ba tax na daal buñ la laajoon maam Khalifa mooy kan dañoo bëgg nga taarifal ñu ko ndeel mooy Alaaji Abdoulaye Ñas rek Khalifa mooy Alaaji Abdoulaye Ñas moom la maam alaaji cuub meloom wa moom la maam alaaji xamal xam-xamam ya moom la maam alaaji donnaloo maqaamam ya kon maam xalifa mooy alaaji Abdoulaye Niass boo doon tagg maam alaaji Abdoulaye Niass ba ngay jeexal ne mooy xalifa juumoo boo doon tagg maam xalifa bay jeexal ne mooy alaaji Abdoulaye Niass juumoo Seydi Sukayruj seede na ko ne maam Khalifa moo donnu maqaamaay Alaaji Abdoulaye Niass yi moo tax demal ci Riyaadu Silwaan mu ne wala qad akrama allahu waladahu alxaaji muhammad bi irthi ma ladayhi fa futiha alayhi bilfatxi alladi shahida bihi alxaasu walaamu wa aymullahi inni la ushidu lahu bil xusuusiyatil kubra dem na ba ne wal masiyati taama a fi hadihi tariqa wa wuqufihi ala ayni alxaqiqa demal ci riyaadu silwaan danga ca fekk seede yooya donn na maam alaaji ca dem diwaan bokk ci ensemble yàlla bi nga xam ne lu yàlla def ko inna lillahi ibadan araadu araada booba assemblée ci la maam Khalifa Niass bokkoon wax nañu heure bi mu dem wax nañu place ba fam ne wax nañu tamit bu ñu dajee la yan dossier lañ fay kaas te luñ fa wax mu am moo tax wate Lamine Gueye beeg Senghor ba Senghor ñëwee ñi boole koog moom mu wax ko mu ne ko ah diiwaan de danaa fa tawat say mbir ba mu demee diiwaan wax ko fa waa diiwaan yëpp d'accord ci mu ne bi ma ñibbisee dégg naa ay yuuxu yoo xam ne duhut yuuxuy nit ñu ne wii Senghor te ko doon wax duhuñ ay nit kon Senghor mooy jël réew bi mu ne moo donn maam El Hadj Abdoulaye Niass ci xutbaaniya donn ko ci xilaafa ak Cheikhu Tidiane Serigne Abbas toog nañu laaj ko ne ko waaw xutbaaniya ndax doom mën na koo donn ci baay mu ne bi tariqa bi commencé ba léegi kenn laa ci xam ku mos a donn maqaama xutbaaniyatun ci baayam mooy mawlaaya xalifa alxaji muhammad Niass boobu maqaama boo ci xasee yéeg ku la ñàkkee teggihin ci dund ak génn àdduna dee ci kéeféer dem safara koo may wirdo yaay sëriñam koo mayut wirdo yaay sëriñam koy waxeek donte mayoo ko wirdo fa war a dagg wirdo wa tontu la ndax yaay seexu tijaan ci kaw suuf maqaama bu tedd boobu moom la yàlla jox maam xalifa ñas akrim bihi min kawlaxiyin aalimin mutabaxirin fi lilmi fi sudaani niamal xalifatu fi tariqati cheyqina anna wa amman qablu fi l qad faaqa fi ilmi shariati wal xaqiqati gayrahu bil xaqi lal buxtaani kon wuy si ngeen xalifa wuy si ngeen maam xalifa maam xalifa ñes ku ko wuy si wuy si nga seexu tijaan maam xalifa ñes ku ko wuy si wuy si nga alaaji Ablaay turandooram wa ci yaa ayyuhal lazina amanu stajibu lillahi wa li rasuli jooja yàlla wax ku wuuju nitu yàlla rek dëggal nga loola te dama ne maam xalifa la mu ci Cheikhu tijaan moo def intibaax ci moom dama ne maam xalifa bu dul wëliyu yàlla xamul wëliyu yi ne Cheikhu Tidiane ndax wëliyu la coow la bëri mu ne Cheikhu Tidiane bu dul wëliyu yàlla amul wëliyu wilaayatu sayxina tijaanil afdali in lam takun fa laysa lillaahi wali waaye maam xalifa bu dul wëliyu yàlla xamul wëliyu kon dalal nañ leen fii ci xadaraam bi ngeen wuy si wooteem bi ma déggee ci làmmeñu koo xam ne du wax ci bànneexu ba kanam de lum wax dëgg la lum nar dëgg la lum fas dëgg la muy mawlaay alxaaji omar ñas moo ne pëndëb siyaaraab maam xalifa nga jóge koo sa dëkk jéew mbaa nga bàyyi koo sa dëkk bi ñibbi foofa fu la pënd ba duggee rek sa yaram xaram na safara alaaji man nga sa ko wax kon ñu ngi leen ci dalal di leen tatagal ci tuuru xalifa bu tedd bi di suñu kilifa di suñu xalifa di kilifa gu baax gu lewet gu maandu gu doylu gu dëddu ku mën dogu ku bëgg yàlla bi jàkka yi tijjee ba jàkka yi tëjee ñépp am problème moo tijji jàkka yi cérémonie yi biñ ko ajee kenn talatut ko moo ko ubbi toujours may wax ma ne leen suñ xalifa bi daal amul benn problème ñàkk problème mooy problème loo fekk ci moom nit a ko ca def waaye nekkut ci moom man de musumaa gis yàlla laay wax de ku ko gën a rafet xol ci ku ma xam di dund ak moom man xaw ma ko xolam bi su fekkoon ne dañ koy jaay man danaa ko waxante xaw ma danaa ko mën a jëndam déet mais danaa ko waxante ngir xol bu rafet kon yal na fi yàgg yal na wér yal na am jàmm yàggam fi mooy suñ jàmm yàggam fi mooy suñ sutura yàlla yàggal ko fi yàggal fi rakkam yu baax yépp yàlla yàggal ko fi yàggal fi doomam yépp doree ci alxaaji ahmed babacar ba ci ki gën a tuuti ci sët yi njukkal lool nag suñu doom suñu rakk yi tey nga xam ne baas bu yànji bii ñoo ko sóoru taxawal tànt bi taxal làmp yi lu ci nekk yépp ñooma muy ab Ablaay Njaay mii di doomu suñu baay ju baax ja Mawlaay alxaaji ibrahima borom pénc mi ak maam góor ak Muhammad Nazir ñoom dañoo jaay seen ak njureel jëndee ko taalibe yéeg fii mu waroon ngi ñun ñëpp waroon taalibe yëpp ñu wàccee ko ñëpp huutu ci ñëpp kon yàlla nañu yàlla huutu ci seeni mbir lay Njaay amu leen morom seen mag ju baax ja hélas bi mu demee man tiitoon naa muy alxaji mu ndaw xam na ne su ma tàggu woon sax ma fomm ko moo tax ba muy dem Amérique sax ñi mu ngi maa tàggu ndax bu ni ma damay dem ma ne ko koy bàyyee tànt bi koy bàyyee pénc mi waaye alhamdulilahi rabbil alamin ba mu demee ñoom ñii ñoo ànd ñëw ne mën na sa xel dal dara du yàqu waaye alhamdulilahi rabbil alamin tànt bu mel nii de ba fi hélas di nekk sax mësuñ koo xam ku def lu baax nga seede ko wala takutumu shahada la alquran wax kon jërë ngeen jëf li ci des nag mooy dugg ci mawduu bi rek xam naa mawdoox bi sax damay génn ci mawdoox dugg ci mawdoox boo xam ne moo nekk sa nafsul mawdoox parce que waxtaanee maam Khalifa Niass mooy jàmm su ma ci génnee bëgg dugg ci jàmm kon dama bàyyi ko ci jàmm dem ci jàmm rek wallahi waxtaane maam Khalifa ci réew mi mooy jàmm waxtaane ko dana sabab tawab yërmandeeg yàlla ci suñ xol yi tawab njëggal ak yàlla ci suñ bàkkaar yi tawab yërmandeeg yàlla ci suñu ajo yi loolu inda zikri saalihin te te nasalu rahmat kon loolu rekk doyoot ci waaye mawdoox bi mooy lislaam ak jàmm lislaam de diina la joo xam ne dafay woo wi yépp ñu ñëw kerlu ci roon keppaar ak jàmmam gi matale ñépp lislaam rekk moo am jàmm ju matale ñépp ku ko wuy ci wooteeb jàmmam booba nangoo keppaaroo keram googa mu jàmmal sa bakkan ba kenn du ko bóom ci lu duwut xaq mu jàmmal sa der ba kenn du ko yàq mu jàmmal sa alal ba kenn du ko jël ci lu duwut teey ak sa bakkan lu dul xaqi lislaam jooju jàmm ju matale lislaam rekk a ko am ku ko wuti fu dul lislaam dangay ngay tardeel sa bopp te du sotti jàmm ju matale ñëpp matale fépp matale lépp lislaam rekk a ko am moo tax sax baat ba di tekki baatab jàmm al islaamu mustaqun min salaam baatab lislaam mi ngi xaree ci jàmm moo tax baat bi baatu jàmm lay tekki baat boobu di tekki jàmm ci lislaam moom kenn kese kese muy baatab salaam rek boo ko jëlee alquran tudd na ko fukki yoon mais nag waxuma mustaqaatam ya fi ko alquran tudd bokk na ci salaamun qawlan min rabbi rahim salaamun ala nooxin fi l alamin salaamun ala muusa wa haarun salaamun ala ali yaasin salaamun aleykum tibtum fadxuluha xaalidin salaamun hiya xata matla'il fajri kon baatam salaam ak boppam rek fukki yoon la ko alquran tudd boo jëlee xaruwaayam ya nag mustaqaatuhu mi ngi nekk téeméeri yoon ak ñeent fukk la yàlla tudd maanaam la alquran tudd jàmm ci xaruwaayam yi benn mu xaree ci ismu bi wala ci masdar bi dem ci ismu faa'il mbaa mu dem ci fi'l yooyu yépp boo ko calculer cent quarante fois la yàlla tudd jàmm ci alquran waaye benn baat bu ko yàlla tuddee téeméeri yoon ak ñeent fukk booba baat kenn mënta am jàmm te yóbbu xalewuloo ko booba baat kenn manta yegg fa nga jëm bàyyi ko gannaaw ku ko bàyyi gannaaw nekk ca gannaaw bu ñaareel bi boo jëlee sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam lim tudd jàmm moo ëpp li yàlla tudd jàmm yonentoog boppam rek xaddiisam yépp boo ko calculer lim ci tudd jàmm mi ngi nekk mille cent trente-deux junney yoon ak téeméer ak fanweer ak ñaar boo calculer xaddiis yonent bi ci la ci sayyiduna Muhammad tudd jàmm sallallahu alayhi wa sallam menn mbir bu ko yonent bi tuddee mille cent trente-deux loolu du caaxaan ndax yëg nga ne foo dégg ñaari soxla rek jàmm am ba pare waaye bu jàmm dàqoo soxla sa benn lay doñ nañ fexe ba jàmm am bu jàmm amul kenn du tal njaboot bu jàmm amul kenn du tala julli bu jàmm amul kenn du tala aj màkka bu jàmm amul kenn du tal soxna bu jàmm amul kenn du tal alal moo tax yonent bi tudd ko 1132 yàlla tudd ko 140 fois ci alquran lislaam jël jàmm def ko muy sémbulu jullit ni jullit bu nekk sémbulam mooy assalaamu aleykum wa aleykumu salaam ci moromam ku ko wax rek nga xam ne nitu jàmm nga koo rombati mu ne la assalaamu aleykum bu lu wéree xolam kenn toggut la ko def ko muy sa mbokk rek moo taxoon sariyatu bale yonantu bi yebaloon muy benn ñàngal usamatu jiite ko ñi war a dem xare ji romb génn góor guy sàmm ay gàttam bokk ci bani sulay im ñu jël ko mu romb ko mu ne asalaamu aleykum ñu ne ah dafa ragal jaasi rekk waaye kii moo tax mu yox baat bi mais gëmu ko ray ko ba ñuy ñëw ci yonantu bi aaya ja wàcc dal ci seen kaw wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta muminan tabtaquuna arada alxayaati dunia fa indalaay maganimu kathiratun ba laaya ja jeex yonantu bi ne def ngeen lu garaaw bu taxutoo nag yërmande yàlla rek mu dugal leen safara waaye lu mën a xew moom demal nga goreel jaam ndax comme da ngaa kenn ci xeet wi foog nga libéré kenn mu ñëwaat remplacer ba kanam ba ndax kooka lu mu wax asalaamaaleykum kon asalaamaaleykum mooy sémbalu jullit ñi ku ko wax rek bokk ci ñun ku ko wane gannaaw rek bokk ci ñun moo tax yonentu bi sallallahu ne ci xadis ab buxaari yu abi hurayrata moo ko génnee dafa ne laa tadxulul jannata xatta tuminu wala tuminu xatta taxaabu awala adullukum ala cheyin ida faaltumuhu taxaababtum qaalu balaa yaa rasulallah qaala afshu salaama baynakum buxaari yu yonentu bi nee na mënu leen a dugg aljanna mukk te gëmu leen yàlla mënu leen a gëm yàlla mukk te bëggantewu leen du ngeen ñëw ma tegtal leen loo xam ne su ngeen ko waxee da ngeen bëggante ñu ne ko yow la ñuy déglu mu ne dee leen siiwal nuyoo ki seen diggante ku romb sa morom ne ko asalaamu aleykum mu ne la wa aleykum salaam feeg lool mi ngi sax ci pénc mi rek jàmm di fi am waaye bu ko làmmee ñi waxee na ko xol yi fas bu ko xol yi fasee na ko cër yi jëfee wax ko rek doyut fas ko rek doyut mais dañ koy jëfee jàmm acte la dañ koy jëfee yonentu bi liggéey ci politique bu rafet mu ne ñett nañ joxe baat bi kuy dox na ko joxe ku taxaw na ko joxe kuy waaxu na ko joxe wala kuy daw lu ko waral yow boo toogoon tey naaj wu tàng wii nga gis benn waay taxaw wala nga gis mu toog wala nga gis ko muy daw la ngay njëkk a wax mooy waa ji taxawaayam bii mbaa waaxoom wii mbaa dawam bii est-ce que jàmm la waaye bu ñëwee na la asalaamaaleykum nga ne ay ndeke waaxoom wërëw wi jàmm rek la ëmb moom la ma sotti ni moo tax kiy dox di ko joxe kiy daw di ko joxe ki taxaw tamit di ko joxe bu ñëpp toogee nga taxaw. dañuy fol si taxawaay bi du jàmm bu ñëpp toogee toog dematuñ fenn ngay dox dañuy foog ne sa dox bi du jàmm bu ñëppuy dox ngay daw dañuy foog ne sa xel wi ak sa daw bi du jàmm waaye boo ko joxee rek ñu xam ne jàmm rek nga ëmb ci lislaam atteem mooy joxe jàmm muy nuyoo sunna la mais fay nuyoo moom farata la waaye sunna boobu ci digëre moo ëpp doole farata ji parce que ki joxe ki ki ki joxe nuyoo kii la nuyu dafa laa woo ki jàmm yow mi ko fay danga nga ko wuyu ci ci jàmm moo tax wuyu ji jàmm moo ëpp yool woote jàmm waaye nag woote jàmm moo ëpp yool kon wuyu ji jàmm waaye nag wuyu ji jàmm moo ëpp dëgëre ci àtte ndax farata la woote jàmm moo tax nuyoo di sunna fay nuyoo di farata ndax alquran ba muy digle nuyoo ci aaya ji waxut bu ngeen nuyoo leen déedéet dafa ne buñ leen nuyoo waaye wax na nag fay leen te al amru yadullu ala al wujub maa lam yu sarifu sarif moo tax mu ne wa ida xuyitum bi taxiyatin fa xayu bi ahsana minha aw rudduha fa xayu jooja moo moo ko may doole moo tax muy farata doonte nag nuyoo sax nuyu leen am na ci alquran wa tusallimu ala am na ci alquran waaye yonantu bee ñu jàngal ne nuyoo sunna la fay nuyoo farata la waaye loolu nag ci saraa yépp même sariha bi yonantu yàlla ibrahima ba nuyoo sunna la fay nuyoo di farata moo tax ibrahima dafa toog ami gan ñu nuyu ko ibrahima fay leen waaye boo jàngee balaaxa ni ibrahima fayee moo ëpp doole ni ko malaaka yi nuyoo is daqalu alayhi fa qaalu salaaman qaala salaamun qawmun munkaruna jumlatul fi'liya la ak jumlatul ismiya ndax xaaloo salaaman ay nu sallimu aleykum salaaman waaye nag salaamun ay salaamun aleykum boo demee ci balaaxa day wax ne jumlatul ismiya moo hëpp doole jumlatul fi'liya moo tax ni Ibrahima fayee moo hëpp doole ñoom niñ nuyoo yi kon fay nuyoo am na doole lii mooy jàmm jàmm yonantu bi sallallahu alayhi wa sallama moom la jëmbat ci pénc mi ci la jeexal dundam pour jabat pour jëmbat ko ba mu demee madinatul munawara fekk na fa ñaari famille yu bokk benn maam xeex nañ lu ëpp téeméeri at muy awsu ak xasraj soqee ci xaylatu pour yonent bi jëmbat jàmm lu mu wax dafa leen a woo ba ñu ñëw mu ne yee eh, awsu amatul xasraj amatul bis ni ki tey boole naa leen yéen tudd ansaaru diini ñëw moom fa allafa bayna qulubikum fa asbaxtum bi nicmatihi ixwaana ñi juboo nekk benn soppante yëhóor yi leen doon boole di banu Qurayza ak banu Nadir yonent bi ne kaay leen ma woo leen ci jàmm nañu si ay ay ay ay ay ay ay patt ci dëkk bi nu ñu mën a def ba jàmmu am fi bu kenn ci ñun di xeex moromam kuy xeex maanaam na ko moromam dimbale kuñ jàpp fi prisonnier buñ koy laajal na kenn ku ci nekk génnee ci poosam ñi dimbale ko waaye mbooleem contrat yi yonent bi signé woon ak ñoom ñoo ko ñoo ko ñoo ko dajji firi ba tax yonent bi xëy rey leen ñii mu xëy génnee leen maanaam Madina ñi dem dëkki fële ca asriaat ci diggante banu nadir ak ba banu qurayfata kon nag yonent bi dundam lépp jàmm la boo seetee fukki ambassadeur la amoon ñum yónni jox leen i leetar maam xalifaay wax leetar yi mbind lu yépp yóbbu ko ci buur yi fanweeri leetar la ak ñett mu teg ko ci loxool fukki nit léeg-léeg nag fukk yooyu ñaar ànd waaye leetar ya mu gudd mu gàtt boo demee da nga ca fekk daal balaa tëj leetar ba fanweeri leetar ak ñettam yi aslim taslim aslim taslam maanaam jébbalul nga mën a bokk ak ñun jàmm ji jàmm ji ngay wut fa nga nekkoon amu fa foo ko mën a wutee fu dul lislaam rek amut fi ci lislaam dong la am kon aslim taslam leetaram yëpp loolu la koy boo demee ca fin wu leetar ba demal ci euh, maanaam saqiratul ataaya fil wufudi wa saraya bu maam xalifa ñas mu ne fanweeri leetar ak ñettam yëpp boo ca dem loolu lay tëjee leetar ba ñaareel ngir bëgg jàmm kon wax naa leen importance su jàmmu mu des nag waaw jàmm lu koy maye xam ngeen lii maye jàmmam mooy jàmmal koo bëgg mu koo bëgg mu may la jàmm danga koy jàmmal waaye nit ku mën a doon boo ko xeeñee jàmm mu jàmmarloog yow moo tax sax gis nga nit ki boo ko sonalee lu mu lay wax waaye jàmmal ma waay ah kon boo ko jàmmalee rek jàmmu am nañ jàmmalante ci suñuy nañ jàmmalante ci suñuy alal nañuy jàmmalante ci suñuy bakkan bu jàmmalante amee rek jàmmu am waaye jàmmu kenn du ko tabax ci tappale kenn du ko tabax ci ay xor kenn du ko tabax ci ay caaxaan danga koy tabax ci ak dëgg te mu nekk jëf ba nga nekk wax rekk ba nga nekk pas-pas rekk lii rekk la lii rekk mooy liy indi jàmm jamono ji nag suñ pénc mi jax na tabaarakallaahu coow li bari na mu laayi biri ko luy tax mu baxi taalibiya dem soxla ju boppam li wax lépp mbaam xalifa tënk na ko baxil mbindéef yi sa gannaaw dem xuti yàlla mbindéef yi kenn mënta ànd ak ñoom jëm ci yàlla fal yatrukil xalqa zahriyan bila arbi la maam xalifa wax kon nañuy bàyyi xel tabaarakallaahu ci fukk yi tey bàyyi xel tabaarakallaahu ci taalibe yi sëriñ daal dafa war a jàppee boppam ne njaaxaanaay laay tëddee ku ma tàllal loxo ma ñaanal la lu nit sàkku ci man boo ko fekkee ci man ma jox la ko xemale naa ñépp man daal maa fi huutu yonent bi yonent bi loolu la wax sallallahu alayhi wa bi nee na al ulamaau umanaau rusuli ala ibadillahi ida lam yuxaalitu ida lam ida lam yuxaalitu sultaana fa ida xaalatu sultaana faqad xaanu llaaha wa rasulahu bu ñu fa yeggee nag mu ne ko nag faxduruhum waxtasiluhum yonentu bi nee na boroom xam-xam yi ñoo xuutu yonantu yi lépp lu waay ne woon bu fi yonantu bi nekkoon ma defal ko ko rek boo fekkee kuy jàngali diine tegu ci yoon te jub rek defal ko ko waaye mu ne fekk jaxasuñoo buur yi nag bis buñ jaxasoog buur yi di lekk seeni lekk seeni waruwaay sol seeni yére tabaarakallaahu jaxasoo goo xam ne dañ dem ba duñ leen ñemee wax dëgg yonantu bi ne na beru leen leen ñoo ngi ñoom a xem yonantu bee ko wax moo tax kon sëriñ ci digg bi rek lay ne bu buur juumee mu woo ko wax ak moom bu baado la juumee woo ko wax ak moom lu loxol baado la mënta jot mu fexe ba loxol buur joti ca lii rekk la amul leneen lii rekk la su ko defee kon nag rolu sëriñ daal du dara lu dul tegu ca yoon wa tëdd ca xoote kese tegul ci yoon wi di ca xoote yoonu lislaam waa ngi nii jub kocci tegu naa ca maa ngi cay woote qul hadihi sabili ad'u ila llahi ala basiratin ana wa man tabi'ani wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fa tafaraqa bikum an sabili ñaari aaya yooyu ñoo définir lan mooy rolu sëriñ tegu ci yoon rek te di ca xoote bu la kenn wuy see baax na bu la ñaari wuy baax na waaye fexeel rek ba tegu ci wan bu ko wàcc mukk ndax li an yahdiya llaahu bika rajulan waahidan xayru min ad-dunya wa ma fiha loolu nag tegu ci yoon te da ca woote day laaj nga xam day laaj nga ragal yàlla day laaj nga maandu day laaj nga doylu tabaarakallaahu day laaj nga dëggu juróomi qualité yi ku ko jor kenn mënu soppi or nga jamaa nga rawatina nag doylu nit ki bu doyluwut lu mu am am ci xam-xam lu mu am ci ay maqaama wallaahi njëg rek la ku ko fekk rek jënd ko nit ki bu doyluwut mënta mucc ci ci lekk nger te ku lekk nger da nga lekk jar nger ak njaraayam buñ la buñ la ngeree rek nga jar mbir yi te diine ku ko jar mu yàqu moo tax yonantu yi nga xam ne tey sëriñ yee leen wuutu kenn ñi mu ci woon a jege nger xoolal yonantu yàlla Suleymaan ak maqaama bu rëy ba bi ko balxiis bëggee nger lu mu wax atumidduuna nii bi maalin fa maa aataaniya allaahu xayrun mi maa aataakum bal antum bi hadiyatikum tafrahun ah da ma bëgg a nger ki sa alal ji jugal fii nga jël sa alal man faaliwuma ko mu jige dafa takk ak buuram gaag ngangu naayaam gaag ñam ànd ak ñépp ñëw jébbalu ki suleymaan ànd ak moom ci yàlla wa aslamtu maa suleymaan lillaahi rabbil aalamiin suul xar nay nekk maqaama bu rëy ba ba ko nit yaa juuje ak maajo ya bëggoo njar bëgg koo njar pour mu soppi dëgg ànd ak lu duhul dëgg lu mu wax qaaloo inna ya juuja wa ma juuja mufsiduuna fi l ardi fa hal najcalu laka xarjan ala an tajcala baynana wa baynahum suddan lu mu wax qaala maa makkani fihi rabbi xayrun fa acinuuni bi quwati jcal baynakum wa baynahum radman mu jeex sëriñ foofu rekk la war a taxaw mucc waaye waat naa ci yàlla politiciens yii sëriñ bu leen mooy tuxut ñu yóbbu la retraite wala ñu yóbbu la ardo te sëriñ bu ci xas dem ardo moom dootoo er, ardo moom jig na mbër waaye waaye jigut mbëru diine mbëru diine bu demee ardo rekk yàqule ku fi mën a ne lu mën a doon dafa la fekk ak askan wi buy dem dafa lay bàyyi ak askan wi bul fexe nag ba askan wi xeeb la mbaa ñu jéppi la boo ko defee rek yàqule ñoo fi ne ñoo fi des mu jeex soo gëmee loo rek noppale képp ku yàlla jox doole muy pouvoir ñaara la war maandoog yërëme rek maandul jël mbir yépp teg ko ci dëgg kenn ku ci nekk lii xam nga jox ko bu mat sëkk te nga am yërmande yonentoo ko wax irhamu man fil ard yarhamkum man fi sama saa yu ngeen yërëmee gaa yi nekk ci suuf yàlla mi leen féete kaw yërëm leen ku dul yërëmee nit ñi kenn du la yërëm mu jeex coow li nag jaru ko programme ak bilan rek moom la war a indi ñi fi neewoon bëgg fee neexaat nañ leen laaj seen bilan bu doyee askan wi baax na ñi fi bëgg a ne nañ indi seen programme bu programme bi baaxee mu doy askan wi ñu ñu jox leen carte yi wa qulil haqq min rabbikum fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di ñaan ngeen toog. ñooñu ñëpp ngeen toog ngeen dal deuxième round dana ñëw xam ne bu demee ba waaj a julli timis seen lamin daloon indi si rasulullah sallallahu alayhi wa sallam toog leen yéen ñëpp sa ñaari dana ñëwaat toog leen toog leen yéen ñëpp toog leen pareegun sa ñaari dana ñëwaat bismillah toog leen yéen ñëpp ña ñëpp toog na ñëpp toog te dégloo. ñi ñëpp toog te déglu day noppalu rek day jël air des na air bu dàq bu dàq bu dàq bu jëloon yéen ñëpp toog leen toog leen toog leen toog leen bisimilah. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin Euh, politique ak yi ni nee na ñooñ lislaam yaakaar naa ni wala ñooñ lislaam war nañ moytu bu baax li nga xamante ñoo di politique yi ndax kii ñëw fii la leen di fekk kii dem tamit fii la leen di euh, bàyyi muy ay message yu am solo jamono jooju nag euh, kii la di Oustaz Assane Diouf moom tamit yegsi na fi nga xamante ni moo di si tante bi moom tamit ñu dégtal leen ko rek mu wéyal li nga xamante ni rek moom moo di waxtaan bi indi ay nuyoom. tantaan leer tàmbalee ci nuyoo yooyu nag xalifa bi di cheikh Ahmad Tidiane xalifa ñas ak rakkam yi ak njaboot gi yëpp waaye itam di nuyu kilifa yi ñu fi fekk di sant yàlla itam ci li ñu fi jot a dégg di